sun Sonko dikkaat na si lu ñeel faat gi mu ne dañ ko ko naroon a fukki fan ak juróom benn si weeru mars gi ñu weesu fi si Ndakaaru bi yoon nag sa post bu mu siiwal si réseaux sociaux yi tey si àllarba gi la firndeel ni résultat analyse yañ doon defee sa biti réew di ay yëre yu mu fa yónnee woon mujj na firndeel soupçon yi mu am la Sonko nee na balaa yàgg daana amal ab conférence de presse ngir indi rek ay leeral si mbir mile le fas na ñëw yéen a nag yóbbu yëf fa mbaxane doonee benn ngir xam rek ñan ñoo làqatu si ginnaaw lu ni mel. ci fàttali yëf yi mu ngi xew fukki fan ak juróom-benn ci weeru mars atum si yoon ba Ousmane Sonko jëloon ngir utali tribunal bu Ndakaaru waroon dem teewee ji procès bi ko lëkkale ak Mame Mbaye Niang di riñ gi gàll wàllu tourisme gannaaw nag ñàkk déggu amee si digganteem ak takkader yi ko bëggoon jaarale si yoon bi ñu tracé takkader yooyu dañoo mujjee sax génne Sonko si otom yóbbul ko seen bopp tribunal nee nañ nag sa génn ga ak dugg sa beneen oto la mbir ma yëpp a xewee foofee lañ ko sottee ab produit boo xam ne ni tooke la te ñu si woon lenn lu dul si kàddu Ousmane Sonko faat bakkanam muy sax joxoñ baaraamu tuuma si mbir yi agent yu bipp gannaaw nag bi yëfi amee le procureur de la république sant waa sûreté urbaine ñu ubbi ab l'enquête ngir indi ay leeral si mbir mi boobu l'enquête sax moo tax ñu teg loxo ki di yarga si di ab militant wu Pastef bu ñu sukkandikoo si procureur général bu cour d'appel bu Ndakaaru Ibrahima Bakhoum nee na yarga moom sax si boppam firndeel na ni bi yëfi xewee jël na mouchoir bu am vinaigre jox ko njiitam bii di Ousmane Sonko ngir rek mu mën a noyyi si grenade lacrymogène lii nag di kàddu yoo xam ne ni Ousmane Sonko daf ko weddi ba mu set ndax gëm na ni camarade de partem bi tax xewul benn yoon si mbir mi si fàttali nag. yim si Ousmane Sonko ñoom ñëpp la ñu tegoon loxo déglu leen laata ñu leen bàyyi bàyyiwaat si xol bi de l'enquête